bismil ilaahi ma jóg man sant lillaahi sangub jigéen ñii ci dunyaa jaaratullaahi bismil ilaahi ma jóg man sant lillaahi sangub jigéen ñii ci dunyaa jaaratullaahi ngir ñépp ñépp ko gàddul cant war di ko way booleeg siyaaraaka ñaanal jaaratullaahi auzu billaahi mina shaytaani وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى خير خديمه ذي الخبل المتين وعلى من اقتفى آثارهم إلا يوم الدين بوك جلدين بوك mbokki السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw buñ musuloo ci seytaane tàmbalee ci turu borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam sant cheikhul xadim kaana lahoo bi karamil baaqil xadim ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xàq di leen baal di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal ci darajay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di beral cant ak ngërëm ñi nga xam ne ñooy Alxadimiya TV ak mbooleem ñi ñu bokkal liggéey bi rawatina sëñ mbakke mbegereem yi ñu jàkkaar lool di ko ñaanal yàlla fi mu bëgg egg ci liggéeyu Xaadim Rasuul bii mu sóobu yàlla na ko suñu defa boroom defal ko ci loo xam ni dana kawe njortam waaye tamit di nuyu ak di bëggee ñi nga xam ni ñoom ñooy suivre émission bi nga xam ni mooy euh, daara yi soxna jaaratullaahi Mariama Bousso nga xam ni dañuy fas yéene rekk di roy ci ay jikkoom moo tax ñu fas yéene di ci indi toujours ay jàngale yoo xam ni jàngale yoo xam ni ku ci jaar ku nekk di nga mën a gind ko kon ñuy ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu rekk dégg ak topp ndaxte bii paase ñu doon leeral àdduna ak nëx-nëx yi nga xam ni moo nekk ci àdduna ak oyof gi mu oyof ak suufe gi nga xam ni suufe na ko ndax yonent bi salallaahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy boroom diine ji nee na yene subhaanahu wa taala bi mbindee àdduna ba pare da koo peese ak laaf yoo laaf wat ko nga xam ni kon àdduna ak li muy rëy rëy rëy gis nga ni mu ñàkke solo ba mu xamal ni bu àdduna watoon laaf maanaam mu ëpp ko poids ab yéefar du fi mus benn góoxas ndox kon àdduna nga xam ni amul benn solo ñu leeraloon ci yu bëree bëree bëri nga xam ni kon dajale fi ay doom ak ay alal ak ay kër yoo dul dëkke ak ay xéewal yoo xam ni alal joo xam ni daf lay jaaxal ëllëg noo koy régler sa diggante ak sa boroom yooyu yëpp jaru ko fi kon ñu fas yéene eggale li nga xam ni moom moo ci des siñu kéemtalaay kàttan ndaxte jamono bi defanaa demoon nan ba ci àdduna Serigne Touba nim ñu jàngale ki nga xam ni noonu la ko war a jàppe muy nga ndax nee na dafa ki nekk ci àdduna bi taalibe bi nan la war a jàppe àdduna kam musaafirin garibin naa fiiha wala taskul bala wal mihana nga xam ni kon danga war a nekk ci àdduna bi kon fi ñu mujjoon a yam mooy dangay mel ni ki doon tukki far yàlla ñu tëj la ci ab kaso noonu ngay tumuraanke yàkkamtee dellu fa nga jóge woon bo defee noonu ci adduna day doo fi jàmbat benn bara doo fi jàmbat benn coona kon li la war mooy li nga xam ne manul ñàkk ci adduna bi ak say farata ci ngay góorgóorlu te gaaw dellu fa nga jóge woon ñu is sëriñ bi dolli teg ci ne is kadaratuha ka faqrin wa marad wa kulli ma min razaya arad awil mulimmat awil bala kal wa dayqi wa kaddaraai fa innahu nicmatu zil jalaali ala al na li ñu war a maytu yii mu nga moom lañ fi wax ak lii nga xam ne moom lañuy war a nekkee jàppe ko àdduna nee na boo gisee loolu ndax àdduna dana dafa am ay nëx-nëx yu ci nekk te àdduna xëndax yooyu li bokk na ci yu mel ni ki ñàkk yi mel ni ki feebar yi mel ni ki ay musiba ak ay balaa yu mel ni ki ci ay ay xiif li mel ni ay xat-xat ak ay lor ak ay jafe-jafe xat-xat yooyu yooyu mooy nëx-nëxi àdduna waaye sëñ bi nee na nëx àdduna yooyu yi nga xam ni mi limal nañ la ko fi su la dalee ci sa kaw na nga xam ni yii ay xéewalu borom bi subhaanahu wa taala moo dal ci sa kaw ay xéewal la li tax sëñ bi ne lii ay xéewal la ci jaam bi nee na lii lépp ay xéewal la ci jaam bi nee na mi ngi ko jële ci al yadaali Mohamed al léegi nag li tax nag mu ne lii mus yi xew mettit yii xiif yi ak coono yi ak xat-xat yi su la dalee lan moo tax mu ne xéewal la ci jaam bi mooy lan ni ka ni lan ndax neena li li na man faqadahu لها سكن صيرت جنته إذ ما سكن فكان يكره لقاء الله ببغضه الموت بلا تناه li tax mu ne xéewal la ndax bu dee xéewal yii dal na la ci àdduna dina la taxalan dina tax nga xam kan mooy sa boroom waaye tamit nee na bu fekkee ni yii nga xamante ni sii day dalu la arad yi ma xam ne wax naa ko fi ak jafe-jafe yi bu fekkee dalul ci sa kaw day nee na kon yow dangay mujj mel ni ku nekk ci sa àjjana dangay jël àdduna def ko sa àjjana te deewagoo li tax mu ne dafay nekk sa àjjana teewa te deewagoo ndax nekk nga fii ci àdduna amoo benn jafe-jafe feebaroo xiifoo maroo ñàkkoo loo yóotu jot ko loo mébét léegi li jën rekk fi ngay toog ngay toog am ko lo soxla sa dara wul kon yow dafa melni yow yaang ci sa aljana su ko defee nag bi néna kon su ko defee nag yow comme yaang ci sa da ngay mujj daal di nak dé da ngay mujj sip daje ak sa borom subhanahu wa taala doto bëgga dajé daje ak yàlla dangay bañ a dajeeg dee dootoo bëgg a deewati mukk da ngay bëgga sax fi ci aduna bi ndax ku nekk sa aljana doto fa bëgga juggé lolo tax mu ne kon ngay mujj bañ dé bañ a daje ak yàlla subhaanahu wa taala te yàlla nee na ku bëgg a bañ a daje ak man ma bañ a daje ak yow te nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon na ni àjjana gi àdduna gi day mooy àjjana yéefar yi kon nag boo nekkee ci àdduna feebaroo dara dalu la nga mujj loo yootu jot ko nekk ci sa àjjana dem ba mujj gi dangay ngay bew gis nañ fi Firawna na mu nekkee woon ci àdduna daawul feebar yii di gaar nit ñi yépp daawu ko dal lépp lu mu soxlawoon am ko dafa meloon ni ku nekk ci àjjanaam mujj gi mu mel ni mujj gi mu dem ba bew moo tax ñu ne yii nag bu fekkee dalu la ci sa àdduna dal na la xiif yi ak mar ak jafe-jafe yi xat yi ak coono yi na nga xam ne yii ay nattu la yu la yàlla subhaanahu wa taala teg te yàlla ku mu bëgg ku nekk dina la teg ay nattu ko ni koy yonente ba xanee na asadul bal asadul bala al anbiya sumal amsal fal amsal dégg nga ki gën a mettile ay nattu mooy yonent yi sallallahu alayhi wa sallam te gis nga yeneent yi ni leen yàlla fonke ndax ñoo fi ñoo fi nekk di nit ñi di ay leer waaye gis nga ni ñu ñoo gënoon a metti la ay jafe-jafe dégg nga su ko defee nit yàlla ya ca topp tamit seeni jafe-jafe kenn ku ci nekk rek fa sa gëm yàlla toll suñu borom dina la teg natt bu ni toll gis nañ ko ci ay nit yàlla yu bari waaye rawatina Cheikhul Khadim mi nga xam ne moom lañuy ñuy nettali am njàngaleem gis nga natt yi ko subhanahu wa taala teg nga xam ni kon boo nekkee ci àdduna te amoo fi benn coono wala benn jafe-jafe kon yow na nga xam ni yaa ngi ci sa àjjana waaye yaa sa musiba waaye coono yii ak jafe-jafe yii bu fekkee ni dal na la tam dal dal na la dina tax lan dina tax nga toroxlu ci sa bopp waaye dina taxit nga dellu ci yàlla subhaanahu wa waaye tamit di nga forcer sa bopp ci topp yàlla mi nga xam ni moom mooy aji topp ji kon yii bu fekkee dal na la dina la taxa delloo si ca delloo si dool dina la delloo ci yàlla waaye dina la tax a toppaat yàlla kon dina la taxa toroxlu waaye nga gis ni kon fa xayru axwaalin li muminin abat xaalatu zullin watiraarin li samat kon mbir yi gën ci jullit bi kon nga xam ni mooy lan mooy jamono bi nga xam ni mu ngi jaamu yàlla subhaanahu wa taala na ko defe ak toroxlu na ko defe ak suufeel boppam wàcce boppam te xam te xam ni yàlla subhaanahu wa taala moom boo koy liggéeyal wala nga koy defal dara dangay wàcce sa bopp wàcce sa ni nga mel te xam ni moom moo la bind ndax loolu mooy li nga xam ni moo la war moo tax mu ne alaa yaraa xawlan yaa tamit aw sababan siwa rahim al munfarid ndax xanaa gisuloo ni amuloo waroo gis tamit xanaa gis xanaa doo gis ni ba doo gis yii nii dina tax ba doo gis benn pexe benn pexe boo xam di nga ci mën a sukkandiku wala benn sabab boo xam ni di nga ci mën a sukkandiku bu dul yàlla wa taala sabab yi ngay sukkandiku di wala ngay ngay def dara benn pexe di ci sukkandiku yaakaar ni moo lay yóbbu àjjana kon yooyu kon yooyu ay musiba la kon kay li gën te jaadu mooy sukkandi ci sukkandiku ci yàlla subhaanahu wa taala bañ a sukkandiku ci say jëf sabab yi mooy julli woor natt azaka dem màkka yooyu yëpp ay sabab la yoo xamante ni si boo ci jaaree yàlla mën na la caa jaare yóbbu la àjjana waaye bul sukkandiku ci jëf yooyu nga xam ne moom ngay ci sabab yooyu bu ci sukkandiku ndaxte loolu boo ci sukkandikoo sëñ bi boo gisee mu koy tere ndaxte mën nga cee sukkandiku nga dem ba mu yàgg loolu nga sabab yooyu wala pexe yooyu nga doon def bés boo demee ba defatoo ko danga tiit ci sa bopp te kon da ngay mel ni dangay ngay fàtte ni yow yërmande yàlla am na te yërmande yàlla lu yaatu la mbindeef yépp xaj na ci ndax mën na laa yóotu ba nga ñëw mu dugal la ci yërmandeem te doonte defaloo ko sax lu jar ñuy wax kon nañu nañu jàpp nañu gëm yàlla te gëm ni te bañ sukkandiku ci suñuy jëf kon boo gisee ni waroo amuloo war a am benn pexe mooy def bërëc wala benn sabab boo xam ni mënoo koo def bërëc nee na ni sa yu mel comme ni mel yu mel ni naka ka misli zi dalaali fil yab fil baydaay za waxshatin wa ka xariqil ma mel ni koo xamante ni si dafa nekk ci digg Mandingrin maanaam ci digg àll bu yaatu rabu àll yeeg ñépp nekk fa nga wéer fa lool jaaxle lool amuloo menn pexe foofu xam nga doon benn pexe lu dul yàlla subhaanahu wa ci moom rek ngay sukkandiku moo tax mu la doon tere ni bul sukkandiku ci sa benn pexe kon foofu yàlla rek moo fa mën a ñëw xettali la fa waaye tamit ak ki mel ni nga mel ni it koo xam ni dangaa nekk ci géej gi di sangu war a lab amoo gilet de sauvetage amoo lenn yaakaaroo kenn xalaatoo fa kenn foofu amoo menn pexe mu mën a ci génn wala benn sabab lu dul subxanahu wa taala maam rek ngay yaakaar mu xittali la kon nañu bàyyi euh, di sukkandiku ci suñuy pexe ak suñuy jëf te xam ni yàlla ñun nit ki mu ngi doxee ci ngëbuk yàlla subxanahu wa taala lu mu soob mu am waye lu mu sobul du am tayit yermandem yatuna julit yep xajna ci waye li nga xamne moy li gën bon ci nit ñi ci moy moy moy lan mune wa aqbalu al ahwali halatu nazar shakhsin li izzi nafsihi aw lil bashar aw istinaadi li gayri qad xasal walaw li ilmin aw li xaalin aw amal ki gën a bon li gën bon ci mbir yi gis jëmm joo xam ni dafay gis tedd nga boppam walla yëkkati ko bokk boppam ci nit ñi mel ni moo gën nit ñi wala mu gis tedd nga am ba faaleetul kenn yaakaar ne jaamu naa yàlla ba egg naa fu kawe léegi daal tedd naa loolu moo gën a bon ci nit ñi moo la gën a mën a toroxal moo la gën a mën a yóbbe musiba wala it sax nag sax ngay wéeru ci sa ci leneen loo xam ne am nga ko wéeru ci sa xam-xam bi nga xam ne moom la la yàlla jox wala ci say mbir yi nga xam ne moom ngay def wala jëf ji nga xam ne moom mooy jëf ju rafet ji nga xam ne moom defal moom nga doon def yii waroo cee sukkandiku ndax sukkandiku ci erreur la xam-xam bi waroo cee sukkandiku yàlla moo la jox xam-xam bi kon waroo sukkandiku ci sa xam-xam bi ne sama xam-xam bi moo may duggal àjjana wala nga sukkandiku ci sa xam-xam bi di ci eh, wane ci sa bopp ak tedd nga goo xamante ni si eh, mën naa am sax ni yow eggloo foofu wala ngay sukkandiku ci jëf ji nga xam ne moom ngay jëf ci sa julli yeeg woor yeeg naafila yi sukkandiku ci ba ni man moom gisuma lu may deree dem àjjana te loolu wóorul loolu naagu ci sa bopp la te naagu wóorul mën na laa yóbbee foo xamante ni si ni ko olof yi di waxe ku naagu daagu te xaw ma boo daagoo ñu raw la kon waroo sukkandiku ci sa lenn jëf ba ni man duma du ma de bu dee rek moo ma teree dem aljana dégg naa benn nit yàlla bu ñu doon nettali benn wàlliyu boo xamante ni si moom newoon na moom buy dee bu deewee rek moom àjjana lay dem ndax musul tooñ boroomam lim fi nekk yépp waaye lan la koy subxanahu wa taala wax ba mu moom dañu ko bés danga doon nelaw ci benn garab daanu ay sànq lañ ya newoon foofu nga mujj leen a rey te yëguloo ko xoolal kon te kooku li mu liggéey yàlla yàlla ñëpp ni wàlliwu la waaye gis nga sew-sew yooyu nga xam ne def na ko rëcc la ko te moom yëgul sax fu mu ko defee kon nañu bàyyi di sëkk sukkandiku ci li nga xamante ni si moom mooy suñuy jëf ak suñuy liggéey ak suñuy sabab ndax kooku de bu doon liggéeyam loolu mu liggéey noonu rek te belentaan yooyu nga xam ne ñoom la rey xaw ma ay sànqalañ te bindul seeni bakkan fan la koy fayee waaye yërmande yàlla moo tax yàlla mën yàlla yërmande yàlla moo koy jàllale kon bu kenn di sukkandiku ci say jëf comme ni ko sëriñ bi waxee mu ne wa fa zullu Zan bin wabala in afdalu min izzi rusdin wa ata in yahsul. Wa fihi du'fu nafsin wa tahkiri wa manahuha al-isyana wa tafkir wa takfiru. Nena torak tangai bakar. Torak tangai bakar umuwa wal muwai. Nga def bakar biya kisabwa pindiman katwa nga ya la bakar nga nga toroxlu ci yàlla subhaanahu wa laa jéggalu ko loolu mooy toroxtaange bàkkaar nee na toroxtaangay bàkkaar moo gën fuuf tedd ngay njub tedd ngay njub ak topp yàlla ndax saa yooyu dee jubal saa yu nekk defoo benn bàkkaar yëgoo ci sa bopp ni def naa bàkkaar yaa ngi jubal di topp yàlla kee nga xam ni day def na bàkkaar topp bay bay torox bay toroxlu ci yàlla subhaanahu wa kooku mooy moo la lay gën fuuf ndax li tax moom moom yëg na ci bopp dina ko taxa toroxlu dina ko taxa suufeel boppam dina tax mu xeeblul bakkanam toroxlu teyit dina ko tere mooy yàlla teyit dina ko kafaar dina ko taxa dina kafaara ay bàkkaaram waaye yow mi nga xam ne gisoo ni man to gisuma ni gisoo ni bàkkaar nga ba tax na Euh, yaa ngi ci sa njub tegu nga ci sa njub nee nga toroxlu doo xalaat yàlla doo xalaat jéggalu def istigfaar doo xalaat tuub waaye kenn ak moom fu mu toll mu ngay toroxloo ko tuub ak jéggaloo ko suufeel bakkanam ak tàggat bakkan bakkanam ak bàyyi mooy yàlla ak kafaara su ko defee suñu boroom da koy mujj jéggal ay bàkkaaram mu ne waaye euh, wa fiihi iqbaalu nufuusi nufuusil aaxira wal ajru in mubaara muba mubaadara ñi nga gis ni teyit loolu dana tax mu dina tax mu tàggat bakkanam ba dafay mujj am ab yool bu bari ak yërmande yàlla kon boo dee toroxlu ak a jéggalu yàlla da la yërëm da yàlla day mujj gërëm la yàlla da lay mujj jox yool bu bari ndax ni nga mujj nangule sa bakkan ba mu mujj ba mujj ba mujj toroxlu dellu ci borom bi subhaanahu wa taala kon lii nga xam ni moom mooy mooy bak bakkan dañ koo war a tàggat te bañ di gis suñu tedd nga te bañ di gis suñuy jëf di naw suñuy jëf ndax soo nawee sa jëf rekk da mujj daal di suufe ربما عبادة أفسدتها ربما عبادة كثيرة أفسدتها آه، لحظة حقيرة بري وانا لون الجام يالا لول بباري طرب بمو ياكار نمو تانيك وايا جنگ كو بوتو تيرك ممو جداد كو ياكا لب كون بني جيس سني بابو ولا ني جيس سني جف يغا خمني مو مو لاني دفل يالا سبحانه وتعالى وايا وطاعة الباطني والصفاء أيضا مع التذكير والشفائي wa taatu baatina taatun baatinatun afdalu min zahiratin ala lam tam lam namin waaye nga gis ni tamit sëriñ bi nee na topp yàllay biir ak sellal ko moo gën fuuf tamit ak di ànd ak di xalaat subhaanahu di ko fàttaliku di xalaat loo xamante ni si dafay mujj saafara sa jàngoro xol kon loolu la yàlla subhaanahu wa taala bëgg di topp yàlla ci biir topp yàlla biir mooy li nga xam ne mooy li sell ndax yàlla subhaanahu wa taala bëggul loo xamante ni si lu fes la kon boo dee topp yàlla di jaamu yàlla na nekk loo xam ne danga koy nëbb waaye foo toll di ko fesal loo defit di ko fesal booy di eh, safaay ak sellal sellal goo xam ni ci sa xol lay nekk maanaam li ngay def na li sell ci yàlla mooy li nga xam ni li nga xam ni dara raxu ci ci àdduna ndax soo de jëfee ba pare yàlla ba julli nga woor nga saraxe nga def nga lu baax ah ñu génn ci ngistal génn ci wanewu génn ci àdduna génn ci ràgg-ràgg yooyu lan moo ciy des ci li nga doon joxe dara dootu ci des ci lu baax loolu dootoo ci desee dara lu tuuti nga cay dese bu dee dinga cee ca dese dara kon li gën mooy booy def dara na nekk ngir yàlla te yàlla tax te nga sellal ko te bañ cee buut ngërëmu nit ñi te xam ni jaamu yàlla biir moo gën téeméeri junni yoon jaamu yàlla yoo xamante ni si ci biti lay nekk boroom xam yépp dëppoo nañ ci jaamu yàlla yi biir mooy naka li may def te yàlla tax yoonu jaam yi nekkuñu ci su may sarax nit ki wala ma koy dimbali dama koy dimbali ngir yàlla te yàlla tax waaye duma ko dimbali ngir wan ko ni ko maa la tane tey tey am na ñoo xam ne bu ñuy defal nit ki ñu ngi dimbali nit de waaye duñ ci am dara ndax xam nga lu tax ñu ngay dimbali nit ki naan ah kii day dama koy wan ni ko maa ko tane defalootoo ko ngir yàlla ndax yow danga koy wan ni ko yaa ko tane walla nga ni diw sama noon la woon tey jii mu ngi nii mënatul dara. kon dama koy wan ni ko man maa la tane li ngay jël di ko def ci moom defoo ko ngir yàlla waaye danga koy def di ko wan ni ko yow yaa ko tane danga koy wan ni ko man maa am amoo kee yaa ngi koy may waaye boo ko mayee ba pare foo jaar yaa ngi koy tudd ak di laaj li nga ko jox li nga li nga ko mayoon yaa ngi koy tudd tudd boobu nga koy tudd dootoo ci am dara ndax tur nga ci bëgg ak koo xam ak bëgg ci ñu la ciy sant ak di la ci ngërëm doon wutatoo ci ngeeramu yalla nit ki bu fekke may nga ko wala nga dimbali ko waratoo ko tuddu ndax sa yo ko tuddé rek amato ca benn tiyaba kon li ngay def ta yalla tax te bëgg mu sel kon dang koy def te dootoo ko tuddu yalla mi tax nga diko def gis nako par exemple ñu dem ci lu melni ni wala lenn amna ko xamni sonuna na soxla na ndimbal ñepp war ko dimbali ñu ne diw dey am na ordonnance cinq mille walla cinquante mille ah, nga génn ci saa si ca mbooloo ma wane ñépp ni mankat joxe naa ngir bëgg awtul tur rek ñu ne diw a baax diw mooy dimbali nit loolu nga ci bëgg waaye eh, te amaana bu la fekkoon te biir kër ga néeg ba laaj la ko yow ak moom ak yàlla rek doo ko joxe kon yow nit ña ñoo taxoon nga doon def ak mbooloo ma waaye yàlla taxul looloo tax mu ne nag li annaha jëfi biir yooyu metti gi nga xam ni dafa metti moo tax mu ne li annaha asqalu yaa xalili ala nufuusi naasi lil xumuli jëfi yàlla yii nag topp yàlla yii nga xam ne mooy topp yàlla yi biir dafa diis lool moo gën a diis moo gën a diis ci bakkan ci nit ñi ci li nga xamante ni si mooy li nga xamante ni si du feeñ par exemple ma dugg ci sama néeg bii julli fajar ni mu metté ba jog julli ci wala ñepp tok ci ëtt bi ma dem tok ci ëtt ba jullee ndok jullee ndok mbolo mi lool moy gëna yomb ma dugg ci sama neeg bi julli ndax mbolo mi bu ma fa jullo ñepp dinañ ni kat ku mëna julli la ku ragal yalla la te neeg ba amana ma fa jullee kenn duma gis yalla rek mo may gis kon motax ñu ne jëfi biiri ak jëf yi nga xamni mo neub dafa diis torop neexul ndax loolu képp koo xam ni yàlla tàggatul sa bakkan ba ngay joxe yow dinga xam ni loolu lu li ma wax lu wér la kon nañu fexe <laughs> tàggat bakkan yi ba bu ñuy joxe ñu xool ki ñuy jox nañ ko jox te teg ko ci yàlla li dimbali ko ci ngir yàlla te yàlla tax te xam ni alal ji ak doom yi yépp ay ak kër yu rafet yi comme ni ma ko waxe woon ci émission bee paase yooyu yépp ay fitna la innama amwaalukum awlaadukum fitnatun lakum te noonu mu ko waxee li nga gis ni sëriñ Touba am na foo xamante ni si leerale na ko fa ndax nee na dafa am bés am koo xam ne dafa ñëw di waxtaan ak moom moom sëriñ bi sax ci euh, bindu waxtaani sëriñ bi ci laa ko jële benn téere bu ñu bind ay waxtaani sëriñ bi am koo xam ni nee na dafa doon teste ay xaritam danoon teste ay xaritam bi mu ñëwee xarit bu njëkk bi daf ne ko man de damaa rey nit waaye xarit bi dani ku njëkk dani ko ah man de ba ngay ba ànd ak yow rey nit taxul woon may ànd ak yow demal ma dem ba may ànd ak yow rey nit taxul woon ñuy ànd kon demal ma dem waaye mu dem ci xaritu ñaareel bi ne ko man de damaa rey nit jaaxle mu ne ko ñëwal ñu ànd nañ dem ànd ak moom ànd ak moom ba génn dëkk bi ba ñu demee ba génn dëkk bi mu ne ko tegul ci yoon wee nga dem kenn du la dab tegul ci yoon wi nga dem kenn du la dab boobu <coughs> xaritu ñaareel bi loolu la ko wax mu ñëw ci ñetteel bi ne ko man de damaa rey nit xaritu ñetteel bi ni ko nañu ànd dem man ak yow ba géej gi fer ku la rey rey ma man ak yow ku la rey rey ma kon nañu ànd ànd ak moom daal dem waaye sëriñ bi leeral ñu ci wax jooju ne xarit nee xarit bu njëkk bi nee na mooy doom ji ak ala doom yi ak alal ji kon doom ak alal nga gis ni neex na lool waaye bu la yàlla dimbaliwul tàggat leen fitna lay doon ci yow doom jeeg alal ji ñoom ñooy xarit bu njëkk yi bés ba nga wanee ginnaaw génn àdduna ca lañ lay wane ginnaaw waaye xaritu ñaareel bi nee na ñooy xarit yi ndax ñoo lay gunge ba ca biir bàmmeel ba ca buntu bàmmeel ba ñu wàcc ñu ñu ñu wàññeeku du ñu ànd ak yow ci biir bàmmeel bi mooy xaritu ñaareel ba ndax da koo gunge ba ca bitib dëkk ba ne doxal nga dem xarit yi tamit noonu la dañ lay indi ba ca biir bàmmeel ba ñu suul <laughs> ànd ak yow ñu wàññeeku waaye ñu gis ni xaritu ñetteel bi sëñ bi nee na mooy mooy jëf ji nga def jëf ji nga xam ne moom nga jëf mu sell nga yóbbu mooy xaritum ñetteel bi moom kese nga yóbbaale ci sa biir bàmmeel kon jëf ji ñuy yóbbaale ci biir bàmmeel nañu fexe mu sell nañu fexe mu laab ba ñu am benn ngistal ba ñu am benn eh, loo xamante ni si lu koy raxala ak di ko yàq jëf ji nga xam ne moom la yóbbaale ci biir bàmmeel nañu fexe muy rafet nañu fexe muy sell nañu yàlla ñu yàlla musal ci njistal yàlla ñu yàlla musal ci gis suñuy jëf te yàlla ñu yàlla xiir ci boppam ci daraja yi seexul xaddim mi nga xam ni moom lañuy ñuy nettali nii ay am mbindam ndaxte comme ni ma ko doon waxee rek àdduna ñàkk gi nga xam ni ñàkk na ko solo bu fekkente ni si bàyyiwuñ ci xel rekk dina topp sunu bakkan ba fa ñuy mujje du neex kon li am solo mooy yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp ci darajay Cheikhul Xadim waaye ñu ngi ñaan yàlla it mu dolli ñoo dellu di ñu jéggal sunuy bàkkaar ci darajay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu ñëpp xaq wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bismillahi ma jóg man sant lillahi sangub jigéen ñii ci dunyaa jaaratullaahi bismil ilaahi ma jóg man sant lillaahi sangub jigéen ñii ci dunyaa jaaratullaahi ngir ñépp ñépp a ko gàddul cant war ko way booleeg siyaaraaka ñaanal jaaratullaahi